asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi nuyu mbokki muridullahi yi fi teew yépp di ndokkeel bu baax a baax ci bis bu barkeel bi nga xam ne am nañu tawféex ngir fekkewaat ko ren dundal ko ci ndigalal sëriñ bi ñun ñëpp ñu ànd def ci suñu kemtulaayal kàttan jëf ci loo xam ne suñu yéene sax ëpp na ko fuuf muy ñu nekk fii ci réew mi muy ñu nekk bitim réew ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala lépp luñ ci jëf rekk ak lépp luñ ci yéene suñu boroom nangu ko te ful ko te barkeel ko lépp rekk dañ koo def ngir di ko sant suñu boroom ni ko sëriñ bi diglee bañ ko matalee itam lépp ñu ngi koy jël di ko ko jébbal di ko teg ci ay loxoom di ñaan suñu boroom subhaanahu wa jamono bu nekk rek mu ñuy gën di saxal ci jëf ak yéene du ñu may yéene du ñu may itam jëf du ñu musal ci seytaane ba mu sori suñuy xol ba ñuy man di am yéene ak di am yitte ak pas-pas ak positif mu ñuy kàttanal itam dañu dooleel ba ñuy mën di jëf ndax jëf mooy tax a jariñu àddina ak àllaaxira foofu la yenent yi jaar ak saxaaba yi foofu la awliyaa yi jaar muy gaayu baax yi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom yéene ak jëf niñ koy faral di waxe jamono bu nekk boo yéenee lu baax doonte mënoo ko jëfit suñ boroom dana la ca bindal aw yiw boo ko jëfee nag bu dee benn suñ boroom dana la ci bindal fukki yiw te suñ boroom sax mooy ful lu ko soob ab safaan boo ko yéenee te jëfoo ko suñ boroom du la ci bindal bàkkaar boo ko jëfee it boo ko tuubee suñ boroom jéggal la ko te bu boobaa du yem ci jéggal la ko sax waaye daf la ciy bindal aw yiw kon suñu boroom ku màgg la ku bari mbëggeel la te bari yërmaande waaye ku tabe la te it ku yaatu la te ku neex a jëflanteel la itam ñoo ngi koy ñaan sax ci gëm ko ak wóolu ko ak yaakaar ko ak wiiru ci moom ak wàkkiirlu ci moom ñoo ngi koy ñaan sax ci sopp ndawam li nga xam ne moom mooy muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam cofeel gu dëggu te dëgër ci suñuy xol te sax ci ba nga xam ne danañ am doole yi mën a sax ci sunnaam dellu di ko ñaan itam digg ndigal ak topp ci Seex Ahmadul Xaddiim mi nga xam ne moom mooy suñu wasiila ba ñuy mën di jëfe ay ndigalam di moytundi ko ay tereem ndax loola moom mooy sabab mucc mooy sabab ak texe àddina ak àllaaxira dellu di ko ñaan itam mu may ñu xolub muñ ngir jamono soppi gu muy gi muy soppeeku soppiku gi muy jamono di soppeeku di ànd ak ay mitiir yu bari di ànd ak ay coono yu bari ak ay jafe yu bari ak ay tolof-tolof yu bari yoo xam ne ñi ngi ko ci ñaan muñ muñ goo xam ne dana téye suñuy xol ba suñu ngëm du réer suñu diine itam du réer suñu ngor itam du réer ndax jamono metti na lool waaye ñu ngi koy ñaan muñ guñ mën a téye suñu diine ak suñu ngor di ko ñaan itam li nga xam ni moom mooy ndimbal ak yërmande ndax moo bind asamaan ak suuf moo moom aras ak kursiyu bind asamaan ak suuf lépp di moomeelam coobareem di dox ci fépp di dox ci lépp di dox ci ñépp lu mu ubbi mu ubbeeku lu mu yaatal itam mu yaatu ci ubbeem akuk yaatalam mu gën a yokk bu baax a baax leer ci suñu xol ba duñu gëlëm ñu sànku te duñu réer ba nga xam ne danañ mën a romb jamono ak i mettitam ak i naqaram ak ay tolof tolofam ñu mën koo romb ni jant di fenke ci sowu di fenke ci fenku di socci sowu te dara du ko gàllankoor ñu mën a jaar ci àddina ba romb ko dem àllaaxira te dara du ñu fi gàllankoor ñu am taw féexi dund ci dëgg ak njub ak leer loo xam ne danañu téyel suñu suñu suñu diine téyel ñu itam suñu ngor ba duñu wax mukk mbaa ñuy jëf ci pays bu ñàkk solo bii di àddina lenn lu ñuy xeebe li nga xam ne moo tax suñu boroom binduñu te mu wax ko ne bindul nit ak jinne lu dul ñu jaamu ko suñu boroom saxal ñu ci loolu defal ñu suñu lépp muy ak jaamu yàlla téyel ñu suñu liimaan suñu lislaam ak suñu ihsaan muy ñett yi nga xam ne mooy gànjar yi gën a taaru ci lu doomu aadama di taarale boppam te mooy liimaan ak lislaam ak ihsaan mooy gëm yàlla gu wér ak jébbal ko sa bopp jébbal ko say mbir di jëfe lam lay digal di moytu lam lay tere waaye loole itam nga di ko rafetal ci soo wéetee ak soo xumbee xam ne suñu boroom subhaanahu wa taala mi ngi ñuy dégg te mi ngi ñuy gis bu fekkee ñun xëy na dégguñ ko walla gisuñ ko it moom mi ngi ñuy dégg mi ngi ñuy gis ñu dund ci àddina dund gi mu sopp te gërëm ko dundug mursaliina yi ak lanbiyaa yi ak lawliyaa yi ak saalihiina yi dund ci xol bu set xol bu laab xel mu set te laab ak ruugu set te laab dara bañ ñoo taq ba ñuy jóge fa moom na sañuy suñuy ruu sete woon laab sell ñu am tawféexi bu ñuy dellu ca moom delloo ca noona bu fekkee matadik doomu aadama ak doyadik doomu aadama gi nga xam ne suñ boroom moo ñu ci bind ba tax sañu koo bañ tax nañ léeg-léeg ñuy daan ci daanu ci ay njuumte ak ay rëcc ricc ñu ngi koy ñaan mu fóot ñu ci géeji njéggalam ci géeji yërmandeem ak géeji njéggalam ba suñuy xol ak suñuy xel ak suñuy ruu lépp set wecc ba nga xam ne foofa danañ fa mën a yóbbaale li nga xam ne moom mooy xol bu mucc ayib bi nga xam ne wax na ne foofa loola rek moo fay jariñe ndax foofa nee na alal du fa jariñ ak njaboot du fa jariñ waaye la fay jariñ rek mooy yóbbaale fa xol bu mucc ayib xol bu mucc ayib boobu nag moom mooy baax moo koy baaxe ku ko soob ñu ngi koy ñaan mu sàmm bu baax suñuy xol te aar ko te musal ko ci mbooleem ndeg ment yi nga xam ne dañuy songu xol ngir di ko yàq te mooy bakkan di bànneex di àddina di seytaane akug réer muy juróomi noonu yoo xam ne dañuy songu xol te dañ koy yàq ngir suñuy xol mën a mucc ayib comme ni ko suñu boroom bëgge ndax nee na foofa loolu képp moo koy jariñe ñi ngi koy ñaan mu musal ñu ci li nga xam ne moom mooy ayibal xol ba suñuy xol mën a mucc ayib mu jox ñu leer leer gi nga xam ne ci la niital waa asamaan niital ci itam waa suuf leer gi nga xam ne fu mu ko yebal rek mu leer nàññ mu niit suñuy xol ak suñuy xel ak suñuy ruu ci li nga xam ne moom mooy siraatal mustaqim bañ gis yoon wi nga xam ne mooy yoonu ña nga xam ne xéewale na leen ci ay morsalina ak i lënbiyaawu ak i lawliyaawu te musaluñu ci yoonu ña nga xam ne daf leen a mere ak ña nga xam ne dañoo réer sa sayaatin yi nga xam ne dañuy wër jamono ñenn ñi di ay jinne ñenn ñi di ay nit te ñuy lëkkaloo di waxtaan ci seen biir te yàq rek tax leen a jóg suñu boroom sàmmal ñu bu baax suñuy nopp sàmmal ñu suñuy bët ba lenn lu koy ëybal bu ci dugg sàmmal ñu itam suñuy làmmiñ ak suñuy cër ba lenn luy ëybal suñu biir duñu ko waxte te duñ ko jëf ruu yu sell yi nga xam ne suñ boroom da leen a bind ci leer te sant leen gindee ñuy sotti yërmande ak xettali ci ay malaayika ak jëmm yu baax yi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci kaw suuf di bëgg gindi jamono ak di leen bëgg a xettali di leen wan siraatal mustaqim te ñoom it ñuy am waxtaan ak déggoo ci seen biir suñ boroom jegeel leen xol yi ak xel yi ak ruu yi ak dënn yi bañ man cee sotti gindeeku ak yërmande bañ man cee sotti yërmande ak gindeeku ak xam ak xàmmee li nga xam ne itam moom mooy sàmm doomu aadama mooy li nga xam ne moom la ñuy wax ma nga xam ne dënn bu mu nekk leera nga fa fu mu nekkul dara néewu fa suñu boroom wax na ne moom moo koy jox ku ko soob daldi wax na it ku mu ko jox jox na ko wu baree baree bari suñu boroom ci leeru leeruk ma ci la ñuy ubbile mbooleem bunti yërmande yi ak bunti barke yi ak bunti xéewal yi àddina ak àllaaxira ci la ñuy tëjale itam mbooleem bunti musiba yi ak balaa yi ak yi nga xam ne day yàq yépp ak day gàllankoor ñu ngi koy ñaan mu saxal leeruk ma ci suñuy xol ak ci suñuy xel ak ci suñuy ruu ba lépp lu ñuy wax ak lépp lu ñuy jëf di dëppoo ak la mu gërëm ci baatin ak ci saayir di dëppoog la ñuy jariñ tey jariñ itam suñuy moroom di dëppook la nga xam ne it mooy tax suñu boroom jariñ ñu ci baatin ak ci saayir suñu dund gi nga xam ne itam ci ay loxoom la nekk xamuñu fu mu tàmbalee ndax coobareem rekk la mu tàmbali ko xamuñu itam ëllëg fu muy jeexe ndax coobareem rekk lay doon ngir mu jeexal ko suñu dund googu ñi ngi ko koy dénk ñi ngi ko koy jébbal te di ko ko dénk di ko dénk suñu yëngu ak suñu dal suñu tëdd ak suñu toog ak suñu taxaw ak suñu dox ak suñu jëmuwaay ak suñu bëgg-bëgg ak suñu mébét ak suñuy xalaat ak sax suñuy gént ñoo ngi koy jébbal lépp di ko ñaan leer di ko ñaan yërmande ak ndimbal ak tawféex di ko jébbal suñu bopp di ko jébbal suñu lépp di jël suñu nos di ko teg ci loxoom di ko ñaan mu ommat ñu di ko wax la ko Cheikh Ahmadul Xadim doon wax naan ko yow yàlla yow mi nga xam ne yaay xayyu di xëyuumi jàppal ci sama loxo jàppal ci sama loxo te nga ommat ma mooy ki nga xam ne ku mu ommat du gëlëm du sànku te du réer mooy ki nga xam ne itam lu mu sàmm dara du ko ruur te ku mu aar itam dara du la gaañ lu mu yëkkati mu taxaw lu jubal mu jub lu mu sottalit mu sotti bëgg-bëgg yi ak yéene yi murit saadix yépp mooy ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla la koy maye mooy topp yàlla jëfe ay ndigalam ak moytandi ay tereem suñu boroom gën ñu cee defal tawféex bu baax a baax a baax kàttanal ñu kàttan goo xam ne danañ mën a not suñuy bakkan ak suñuy bànneex mën a not àddina mën a not saytaane saxal suñuy làmmiñ ci li nga xam ne moom mooy sikkirullaahi saxal li tam suñuy xel ci li nga xam ne mooy xalaat ak settantal jëme ci yàlla saxal suñuy xol ci bëgg suñu boroom ak itte ju kowe jëm ci moom saxal suñuy cir ci jaamu ko ak sàbbaal ko def ci suñuy loxo leer def ko ci suñuy dënn def ko ci suñuy bopp ak ci suñuy tànk def ko ci suñuy wax ak ci suñuy jëf ba am jëf yu set yu laab yu sell yoo xam ne dana dëppook la suñu boroom gërëm te tànn ko alhamdulillahi rabbil alamin suñu boroom ku màgg la ku kowe la te itam ku laab la ku mucc ayib la moom mooy alquddus mi nga xam ne lu dig manqué te sori na ko te it dafa fees dell ci ak mat bind xalam ak lawhil mahfuus bind aras ak kursiyu bind juróom-ñaari déelee asamaan yi def ay malaayika ba mu fees dell ñoom ñëpp kenn ci ñoom mësu koo mooy kenn ci ñoom mës ta wax lu manqué mbaa mu mësa a jëf lu manqué mbaa lu doyadi ñoom ñëpp ci lu mat lañ nekk ba leen yàlla bindee ba tey jaamu seen boroom rekk ak sàbbaal ko boolewuñ ko ak dara mu bind juróom-ñaari suuf def ci ay malaayika ñoom it bind leen ci ak mat nga xam ne mosuñoo mooy suñu boroom ba mu leen bindee ba léegi seen wax ak seen jëf lépp sàbbaal seen boroom la ak jaamu ko mosuñoo wax mànkite mosuñoo def doyadi la ñuy def lépp ak mat la mu téye leen ci loxol boppam bind itam li nga xam ne moom mooy sama ad duniyaa nga xam ne biddiw ya ca kaw asamaan ak la nga xam ne moom mooy jant ya ak weer ya ak la nga xam ne mooy suuf ya loola lépp moo koy wëlbati di ko wëndeel ci sañ-sañam ak kàttanam ak dooleem te amu ca benn njuumte amu ca benn rëcc-rëcc te mussu ko caa am te du ko ca am benn njuumte amu fa benn rëcc-rëcc itam amu fa suñ suuf si mu bind ko dëgëral ko ci ay xeer di ci saxal gàncax di ci bind itam ay ndundat yuy noyyi bind bu mat sëkk yor seen mbir ñoom ñépp di wëlbati seen mbir di ko soppi lépp ca nam gën a jekke ak nam gën a rafete daldi bind nit bind jinne daldi leen di teg nag ci ab diggante teg leen ci benn diggante wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha diggante boobu nag nga xam ne ci la suñ boroom teg nit ak jinne nee na leen binduma leen lu dul ngir ngeen di ma jaamu ndax asamaan yi ak suuf yi binduma ko ngir fo dama ko bind ngir dëgg di koo xam ne it ay waxam dëgg la te mooy borom nguur moo moom asamaan moo moom suuf waaye dafa teg nit ak jinne ci benn diggante ci benn diggante benn diggante boo xam ne daf leen a bàyyee ak lu ñuy wax xurriyatul ixtiyaar te mooy nga saña a tànn loola soob ndax foofu bi mu fi dikkee dafa wax fa alhamaha fujuuraha wa taqwaaha fa alhamaha fujuuraha wa taqwaaha fa alhamaha loola ma ngay tàmbalee ca jax jax maanaam ca ca yëg-yëg ya nga xam ne bakkan am na ko te jëm ci bànneex ak àddina ak jax-jaxal ya nga xam ne jax-jaxali saytaane la alquran daal di wax ne alam tara anna arsalna sayatina alal kafirina te usuhumoo assan xanaa gisu leen ne xanaa gisoo ne ñun yàlla ñun ñoo yebal sayaatiin yi ñoo leen di yebal ci yéefar yi ngir ñu di leen ñu di leen yëngal di leen waxloo di leen jëfloo maanaam melokaan yi ñu yi ñu mel yépp ñun ñoo ñoo jox ndigal saytaane yi ngir ñu di ko def ci ñoom nga xam ne loola lépp coobare suñu boroom la waaye nag mu sàkkal ñu loo xam ne moom mooy gindeeku mooy wa ji mooy fi doomu aadama di jaar baragal yàlla loola itam mooy ba mu defee ci moom bakkan ak bànneex mu nekk ci àddina seytaane it man koy jax-jaxal suñu boroom dafa wëlbatikuwaat def ci moom xel ngir mu di ci xalaat di ci seetlu di ci seetantal daal di wëlbatiku njëkk naa def ci moom xol def ci moom xel waaye itam def ci moom li nga xam ne moom mooy ruu daal di koy booleeg itam ay malaayika yoo xam ne malaayika yu senn lañ malaayika yu yërmande lañ yoo xam ne da koy xëcc dañu koy xëcc di ko jëmi fu baax ki noonu mu daal di nekk nag ci diggante boobu noonu nga xam ne dafa mel ni wetug ndeyjooram gépp dafa tegu ci aljanna wetug càmmooñam gépp daal di tegu ci safara nga xam ne fu mu séqiwaatub jéego jëm fa rek day daal di dem ca wet googa suñ boroom nag daal di koy leeralal mbir mi ba mu leer naññi daal di wax ne innal abraara la fi naxiim wa innal fujjaara la fi jaxiim nga xam ne léegi mbir mi leer na mu daal di wax ne it ku def ci lu baax lu toll ni sarra dees na la ko fay ba nga gis ko ku def ci safaan itam lu toll ni sarra dees na la ko fay ba nga gis ko wax àjjana ak la ca nekk lépp ci ay melokaanam ak i mbiram wax safara it ak la ca nekk lépp ci melokaanam ak mbiram wax ñu baax ñi fi jiitoon te doon def lu baax fañ mujj ci yërmande yàlla ak njéggalam ak àjjana waxit ñi fi jiitoon te doon ab safa ab safaan ñoom it fañ mujj ci merom suñ boroom ak mbugalam ci biir safara ba nga xam ne doomu aadama ñaari mbir yépp nit ak ginne gis nañ ko ba mu leer nàññi fi moom mu daldi wane itam mu daal di wane itam yi nga xam ne li nga xam ne bu ci nit jaaree mu daal di leeral li nga xam ne itam bu ci nit jaaree dana dem safara wal hiyaasu billaah daal leeral li nga xam ne itam bu ci nit jaaree mi ngi ci yoonu aljanna alhamdulilah bu ko defee nag ci jihaad ak suñuy bakkan ci muñ bànneex yi ci dëddu àddina ak itam noonoo seytaane bañ koo def kilifa bañ koo topp ci li nga xam ne moom mooy jiima dundal suñu ruuw sax ci li nga xam ne moom mooy dëgg akuk njub ak itam ci li nga xam ne moom mooy zikrullaahi foofu noonu mooy fi nga xam ne fi lañuy jaar ci zikrullaahi fi la ñuy jaar ngir jëm ndeyjoor ay àndandoo it am nañ ci àddina ñoo xam ne boo àndeek ñoom ñu jëme la ci ab safaan ñooña it ñoo tollool ña nga ca ay kilifa nga ca yoo xam ne dañuy woote ci safaanti ku leen ca wuyu ñu yóbbu la fa waaye itam ci geneen wet gi ci des ay àndandoo yu baax ñu ngi ci wet gi ak ay kilifa yuy gindee ci dëgg ak njub ak leer ñoo xam ne ay say ay suyuux lañ ku jaayanteek ñoom ñu teg la ci dëgg teg la ci njub wan la yoonu leer yóbbu la ci yàlla kon hurriyatul ixtiyaar mi ngi noonu ak lu bari ci sa wetu ndeyjoor lu lay jariñ loo war a mën a tànn lu bari ci sa wetu càmmoñ lu lay lor loo war a mën a moytandiku kon nag léegi yow yaa ci des rek yaa ci des waaw loo loo tànn rek sa loxo sa loxo sa loxo nga ca biir dogal ba loo ci tànn rek sa loxo nga ca biir dogalub suñu boroom ba subhaanahu wa taala moo tax kon nañu tànn li nga xam ne moom mooy moo ñuy jariñ àddina ak àllaaxira te loolu mooy jaamu yàlla ak maandu ak rafetal jaamu suñu borom subhaanahu wa mooy jëfe ay ndigalam moytandi ko ay tereem maandu itam loolu ci suñu diggante la ñu maandu ci suñu diggante te loolu mooy kenn bañ a tooñ kenn ndax sallallahu alayhi wa nee na jullit mooy ki nga xam ne musal na nit ñi ci ab loxoom aku làmmiñam mooy nga bañ a def sa mbokkum jullit lu koy lor wala lu koy gaañ waaye itam nga bañ ko koo wax loolu mooy ak maandu ak rafetal nag mooy rafetal sa diggante ak say moroom loolu mooy nga rafetal sa yéene jëm ci ñoom rafetal sa njort itam jëm ci ñoom rafetal say wax ak say jëf jëm ci ñoom te jëmmi suñ boroom tax ndax nit ñi boo dee xool ci ñoom doo leen mën a defal dara ndax danga leen di defal sax te duñ ko gis wala nga defal leen sax ñu fàtte ko wala nga lebal leen lu baax sax ñu fay la ab safaan moo tax boo boo boo boo dee rafetal jëme ci ñoom. danga koy def ngir jimmi suñu boroom loolu mooy tax nga man koo def mooy tax nga man cee sax waaye bu dul loolu doo ko def mbaa boo ko defee itam doo ci sax danga koy ricc sax moo tax booy rafetal da nga koy def ngir jimmi suñu boroom booy maandu yit da nga koy def ngir jimmi suñu boroom booy jaamu yàlla def ko ngir jimmi suñu boroom subhaanahu wa taala ndax bu fekkee ne nii maanu nga itam du teemu am ñu lay tooñ te tooñ googu ñu lay tooñ boo amutug muñ mën ngaa dem ba tooñ yow itam ndax da nga daan ginnaaw ñëpp nii la ñuy def kon man itam naa ko def moo tax maandu danga koy def ngir jëmmi suñu boroom subhaanahu wa waaw ndax nga maandu du tee nit ñi di la tooñ waaw moo tax danga koy def rek ngir yàlla waaye doo ko def sax ngir nit ñi waaw boo ko defee ngir yàlla doo doo ci jóge mukk waaye boo maandoo ngir bëgg nit ñi maandu ci yow kon bu la nit ñi tooñee nga delluwaat di leen tooñ boo dee rafetalit ngir bëgg nit ñi rafetal ci yow bu ñu rafetalul ci yow kon yow dootoo rafetal ci ñoom moo tax loo ciy def da nga koy def ngir jëmmi yàlla rek booy jaamu yàlla da jaamu yàlla ngir jëmmi suñu boroom doo ko def ngir mbindeef mu lay dégg wala mu lay gis ndax kon boo wéetee doo ko def waaye boo dee jaamu suñu boroom ngir jëmmam ju sell ja ak sàkku ngërëmam boo wéetee da nga ci nekk boo xumbee it da nga ci nekk maandu it boo ko defee ngir jëmmi yàlla nit ñi buñ la dee tooñ du tax yow nga tooñ kenn ndax yàllaa la tax a maandu rafetalit boo ko dee def ngir jëmmi suñu boroom bu nit ñi fayut sag rafetalit du tee yow da nga xam ne suñu boroom dana la ko fay subhaanahu wa kon ñu sax ci jaamu yàlla ak maandu ak rafetal xam ne suñu boroom subhaanahu wa tiim gi mu ñu tiim dafa ñëw tiim ak bëgg ak mbëggeel gu yaatoo yaatu kawe gim ñu kawe itam dafa ñoo kawe ak yërmande yaatoo yaatoo yaatu mën gi mu ñu mën ëpp ñu kàttan ëpp ñu doole daf ko boole ak li nga xam ne moom mooy ay ndimbal yu yaatoo yaatu jëm si ci ñun not gi mu ñu not am ci ñun sañ-sañ suñu jëfandikoo ci ñun coobareem nu mu ko soobe ak nu mu ko neexe daf koo booleeg ak maandu di alxabdulu di almuxsitu ba noppi itam tabe gi mu tabe di ko barile di ko yaatu da koo boole ak di koy maye di koy joxe di itam ki nga xam ne moom mooy sàkkóoru kon ku neex a jëflanteel la nañuy góorlu bu baax a baax ñun doomu aadama ak suñu boroom ñoom ñaar bokkuñu suñu boroom moo gën a màgg te moo gën a kowe yàlla du nit du fakk du fàtte te du juum te du jaawale te du sànk jëfi kenn itam lépp lu waaye jëf rekk dana ko ko fay yow li nga jëf sax te fàtte ko suñu boroom moom xam na ko te jàpp na ko te téye na ko li nga def sax te xamoo lu doon suñ boroom moom xam na ko du juum te du fakk te du fàtte day ànd ak yow ca ba ngay ruu ànd ak yow ci bi nga duggee ci yaram ànd ak yow bi nga nekkee ci yaram ànd ak yow ba ba sa ruu di génn ci saw yaram bañ jël saw yaram sax suur ko ci bàmmeel loolu lépp yow lay doon ci yow ay at yu baree baree bari nga am loo ciy fàtte ak loo ciy nattable ak loo ciy juum ak loo ciy jaawale waaye diggante boobu li muy gudd gudd gudd ci yow tollu ni cerse suñu borom subhaanahu wa taala mi ngi mel ni xef ak xippi ci moom diggante la boo xam ne fàtte sa xëju fi malayka yu sell yi sax duñ ci fàtte dara waxuma suñu borom subhaanahu wa taala loolu moo tax boo juddoo xooyu gi ngay njëkk a xooyu ba ci booy faatu onk gi ngay mujj a onk lépp dañu koy bind dañu koy bind ci ay téere téere yi ñu koy bind ngir delloo la ko yow ngir nga man koo xool man koo jàng man koo fàttaliku loolu moo ko tax a jóg ak itam téere yooyu moom la ñu jël teg ko ci balance yi bopp yiw bi ak bopp safaan bi ngir xool ba xam ban moo ci gën a diis muy téere yooyu noonu moom la ñuy teg ci balance yi ngir xool ba ban moo ci gën a diis waaye téere yooyu binduñu ko sax ngir suñu boroom ndax suñu boroom moom soxlawul ñu koy bindal ngir mu di fàtt ngir muy fàttaliku ndax suñu boroom du fàtte bay bind ngir di ko fàttaliku lañ bind sax ca xalam ak ca lawhil mahfuus bindu ko fa ngir bañ koo fàtte wala mu bindu ko fa ngir bu ko naree fàtte xool ko déedéet loola da ko faa bind rek ngir ña ko war a xam-xam ko te ka ca jiitu mooy jibril ak yenent yi mu ubbi ak awliyaa yi mu ubbi te ñu war a jëli seeni xam-xam ca lawhil mahfuus ñoom ñoo ko soxla ngir di ko fa jële ji waaye suñu boroom bindu ko fa ngir bañ koo fàtte suñu boroom du fàtte xam na lépp xàmmee na lépp te jàpp na lépp te lépp itam mi ngi ko def ci kun fa yëkkoon suñu boroom léppam mi ngi ko def ci kun fa yëkkoon mooy naf xoom boobu ngeen di dégg comme noonu alxuraan di waxe ne ñu ëf ci moom suñu ruu bu ngeen déggee suñu boroom naan ñu ëf ci doomu aadama suñu ruu nekkul ne suñu boroom daa yor gémmiñ yor ay lex di noyyi di xëcc ngelaw di ñoddi ak di ko ëffaat di ko génne mel ni comme ñun doomu aadama déedéet day wax ak ñun rek ci ñun doomu ci ci ñun nit li ñu xam ci ñun ci ñun nit luñ li ñu xam ci koo xam ne day def ci mbir dara te bëgg koo jaarale ci gémmiñam maanaam bëgg koo jaarale ci kàddoom ci waxam bëgg koo jaarale ci kun fa yàkkoonam waaye suñ boroom yorul ay lex yu ñuy guux ngelaw di ko ëf lan ngelaw lay lan ngelaw lay lay lay lay lan ngelaw lay guux lan euh, ngelaw suñu àdduna bii rek boo ko suuf sii boo ko yéegee jëm kaw tuuti ngir nga gisati ngelaw sax daf lay jafe ngelaw fii nii la nekk nii rek boo boo boo demee am na boo demee ba ca kaw a kaw a kow boo demee ba génn planète bi jëm ca weer wa ak yeneen barab yu bari foofu noonu léeg-léeg am na barab yoo xam ne nga gis fa ngelaw sax day jafe waaw mbirum ngelaw àttey fii la nii doonul koo xam ne day noyyi ngelaw ak di ko génnewaat ci gémmiñam doonul ko yor ay lex yu ñuy guux di ci xëcc ngelaw di ko ëf mbir yi tëddewut noonu liñ jubloo wax foofu lépp rek mooy ci kun fa yàkkoonam ci la jële li nga xam ne moom mooy ruu dugal ko ci jëmmi doomu aadama waaw kay loolu nag mooy li muy wax léeg-léeg ba tudd kanamam mbaa mu ñu wax ñu wax léeg-léeg ba mel ni lu tudd ab cër ci moom wax wax ab loxoom waaw wax wax ba tudd lu mel ni kanamam wala ñu wax ba tudd lu mel ni ab loxoom waaw léeg-léeg sax ñu wax ba tudd lu mel ni ab tànkam ci ay ci ay waaw waaye fekk loolu lépp maanaam doomu aadama la ñuy waxal te bëgg mu mën a dégg li ñuy wax ci moom li mu xam te tàmm ko te miin ko te man cee wax ak moom mu mën koo dégg moo tax ñu di ko tuddal mbir yooyu waaye loolu lépp suñu boroom gën na koo màgg gën na koo ko gën na koo kowe suñu boroom gën naa màgg loolu lépp gën naa ko loolu lépp gën naa kowe loolu lépp sa jëmm ji boo ko xoolee rek xool yeneen mbindeef yuy dund fii ci àddina yoo xam ne yaag moom yaag ñoom niroowu leen nga xam ne cër yi nga am yépp moo xam muy bët moo xam muy loxo moo xam muy tànk moo xam muy cëri biir ak cëri biti da ngay gis fii rek yeneen mbindeef yoo xam ne yaa ñoom nirooluwu leen ko te ay mbindeef lañ nga mën leen a gis fii ci àddina kon rawatina mbindéef yi nga xam ne sax ñi ngi ci àddina te mënoo leen a gis suñ boroom bind leen ci beneen bind ak ci beneen melokaan kon waxuma la yeneen mbindeef yi nga xam ne ñi ngi ci yeneeni pays yoo xam ne ay jinne lañ wala ay malaayika lañ suñ boroom bind leen ci yeneeni cir ak ci yeneeni mbir ak ci yeneeni melokaan kon nag waxuma laa jëmmi suñu borom ja nga xam ne moom moo bind lépp kooko mënoo xam na mu mel ak la mu doon saatoom la ñuy xam ak ay sifaatam ak ay asmaoom ak la nga xam ne wax na ko te jëf ko te nettali ñu ko ci alxuraanul karim loola nag day jege suñu déggiin day jege suñu déggiin ak suñu giseen ak suñu xamin waaye suñu boroom kawe na lépp lu aw làmmiñ du tudd ab nopp di ko dégg suñ boroom féete na ko kaw wala lu am xel mën a xalaat ba tënk ko ba jàpp ko suñ boroom féete na loola kaw subhaanahu wa taala mooy alxali yu di alazimu mi nga xam ne kowe na te màgg na te kaweem ak kaweem ak màggaayam tax na xel mënu koo jot xalaat mënu koo jot kenn sax mënu koo xam suñ boroom kenn ku nekk dafa lay xamal rek li ko soob ci jëmmam ja dafa la koy dafa lay xamal li ko soob ci moom ca coobareem waaye kenn mënu koo xam sax ba mu jeex wala yuhituuna bi shay'in min ilmihi illa bi ma shaa ya'lamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yuhituuna bi shay'in min ilmihi illa bi ma shaa yàlla mooy ki nga xam ne moom rekk mooy yàlla te kenn du yàlla ku dul moom mooy alxayu di dund dund gi nga xam ne ajuwul ci muy lekk ajuwul ci muy naan wala muy noyyi day dund noonu rekk te soxlawul soxlawute dun soxlawute dunde dara amul dara lu koy dundal day dund noonu rek te soxlawut dunde dara amul dara it loo xam ne mën na koo dundal mbaa moom mu soxlaa jël dara loo xam ne daf koy dunde du lekk du naan du noyyi alxëyuum ku sax la koo xam ne du fi jóge mukk dafay sax ba faw dafay sax ba faw du fi jóge mukk maanaam du sonn du lottu te du tële te du màggat te du faatu te du jëm ci mag day des di am kàttan di am doole di dëgër téye lépp li ci asamaan téye lépp li ci suuf di taxawu lépp di toppatoo lépp di saytu lépp mooy ki nga xam ne itam mennum moom képp moo moom li ci asamaani juróom-ñaari yépp ak li ci suufi juróom-ñaari yépp mennum moom képp moo ko moom kenn moomu ci dara kenn sax moomul boppam bay moom lenn ci suñu boroom alal jii ngay yor sax ndénkaan rekk la waaye suñu boroom mooy alwaarisu lépp day delluwaat ci loxoom ndénkaan rekk la waaye ba tey moo ko moom te su ko neexee sax mu nangu ko te moo la ko jox dénk la ko te ndénkaan rekk la te su ko neexee it mu nangu ko bu ko neexee mu nangu ko saa bu ko neexee te du la tàggu mu daldi wax ne itam amul kenn koo xam ne mën ngaa tinu kenn ci kanam suñu boroom maanaam mën ngaa ràmm kenn ci kanam suñu boroom ngir suñu boroom jéggal ko lu dul ne yàlla moom moo lay jox ndigal loolu moo lay wax ne la diw nga jóg taxaw mën ne la jógal nga ram mu diw boo ko ram moo jéggalul ko danaa ko jéggal boo ko ram ngir mu dem àjjana danaa la ko nangul yóbbu ko àjjana nga soog a nga soog a saña nag jóg taxaw ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jéggal diw wala yàlla maa ngi lay ñaan nga texeel diw waaye kenn sëñ te jekki-jekki rek naan ko yàlla jéggalal diw wala yóbbul diw àjjana déedéet man zal la si yasron indahu illa bi isni ana kan moom mooy ramm kenn ci yàlla ci lu dul ne yàlla moom moo la jox ndigal ci loolu waaw duñ ko jiitu ci kàddu dañ koy déglu bu leen digalee ñu jëfe malayka yu sell yi nga xam ne dañoo xam yàlla te jege ko ak mursalina yi ak lanbiyaay ak lawliyaa yi diñ jiitu suñu boroom ci kàddu dañ koy déglu mu jox leen digal ñu gaaw jëfe ko di xaaraat leneen ndigal buur dëgg buñ ko dee wax mooy yàlla man salla si yasfon indahu illa bi isnihi déedéet amut illa bi isnihi daal di wax ne ya'lamu ma bayna aydihim moom xam na li ci seen kanam ñoom mursaliina yi ak lënbiyaaw yi ak lawliyaaw yi ak gaayu baax yi moom yàlla xam na li ci seen kanam xam na itam li ci seen ginnaaw wama xalfahu mooy li ci seen ginnaaw it xam na ko waaw li li ci seen kanam xam na ko xam na it li ci seen ginnaaw li nga xam ne mi ngi ñëw te egseegut jëm si ki ñoom xam na ko liñ weesu ginnaaw ba xaw koo fàtte wala ñu xaw koo faay loolee it moom xam na ko fàttewu ko mu ngi mu jàpp seen biir ak seen biti seen kaw ak seen suuf seen kanam ak seen ginnaaw te ñoom ñooñu nag yon yi yuhituuna bi shay'in min ilmihi illa bi ma shaa te ñoom ñooñu nag amut lenn loo xam ne mën nañ koo xam ba peeg ko ci suñu boroom wala boog loo xam ne xam-xam la boo xam ne suñu boroom moo ko yor ci loxoom ñu mën caa xam dara lu dul la nga xam ne moom moo ko soob ngir mu xamal leen ko kenn ku nekk la la yàlla xamal rekk nga mën a xam waaw waaye mënoo xam loo xam ne yàlla xamalu ko mënoo xam ci yàlla lum la xamalut mënoo xam ci fenn walla ci lenn wala ci kenn wala ci sa bopp sax loo xam ne yàlla xamalu ko sa xam-xam mi ngi tàmbalee fi ko yàlla tàmbalee mi ngi yem fi ko yàlla yemale <coughs> mooy ki nga xam ne arasam muy gàngoneem nga muy toog yaatoo na ni asamaan ak suuf boo leen boolee moo leen gën a yaatu te na muy def moom suñu boroom subhaanahu ba wattu asamaanam yi wattu suufam yi sàmmal ko boppam aaral ko boppam ak li ci asamaanam yépp ak li ci suufam yépp muy malaayika yu sell yi di jinne yi di nit ñi di mala yi na muy def moom ba wattu leen sàmmu leen aar leen musal leen wattu leen taxawu leen toppatoo leen loolu moom jaaxalu ko doonut loo xam ne da ciy soxla xelum kenn wala xalaati kenn wala kenn di ko ci jàppale wala kenn di ko ci dimbale wala kenn di ko ci defal lenn moom mënal na ko boppam wala yawudu hifsuhuma loolu du du lu ko të du lu ko jafe du lu loo xam ne da ciy sonn ngir def ko wala muy lu ko jaaxal waaye lu yomb fi moom la lu jàpp di fi moom la nga xam ne mën na koo defal boppam yow nag sag ñàkk dégg jëmmam ji sag ñàkk dégg kàddoom gi wala sag ñàkk gis jëmmam ji sore gi doomu aadama bi di sori suñu boroom ndax ndax suñu boroom moom soriwul doomu aadama waaye doomu aadama moom mooy sori suñu boroom so waaye suñu boroom moom soriwul doomu aadama waaye nag doomu aadama moom mooy sori suñu boroom sori gi itam waxuñu sorog sori sori sori sori jëmm waaye sori gi yow sa tolluwaay ci ci ci xol ak ci xel ak ci ruu sori googu la ñuy wax man ngaa jege te sori ki nga dendeel ba seeni mbagg di riisoo diir bu am na mën naa am diir bu yàgg boo xam ne sa xel sax du nekk ci moom sa xel mi ngi ci leneen bu boobaa day mel ni sax dendiwu leen ba ba sa xel di dellu siwaat ci moom waaw te fekk yéen a ngi dend waaye sa xel mën naa nekk ci leneen ba mel ni sax yaa kooku dendu leen waaye fekk seeni mbagg mi ngi dend sori nit ki moom mooy sori suñ borom waaye suñ borom moom soriwut nit ki moo la gën a jege sax buum yu téye sa xol moo tax yow yaa war a ñaan ngir jege yàlla waaye yàlla moom ku jege la waaye yow nag ngir nga jege ko ngir nga jege ko yaa ngi koy jaare ki sikkirullaahi zikkiru ak fikkiru ak ta'ammul di seetantal di teewlu bay dégg suñu boroom ci lépp di gis suñu boroom ci lépp su boobaa loo loo déggati moom nga ciy dégg loo xoolati moom nga cee gis waxuma ne loo waxuma waxuma waxuma kàddu boppam ngi waxuma itam jëmmi boppam ji waaye li ma wax mooy li ngay gis lépp dangay xam ne moo ko sàkk moo ko bind moo ko amal coobareem moo ciy dox li ngay dégg lépp itam nga xam ne coobareem la bu ko defee lépp dafa lay delloowaat ci suñu boroom te dafa lay jegeel suñu boroom subhaanahu wa bu ko defee kon nit ki sore gi muy sore suñu boroom mooy tax mu mu di ko xaw a ñàkk mu di ko xaw a ñàkk yëg di ko xaw a ñàkk bàyyi xel di ko xaw a ñàkk teewlu defe ne tey daal xëy na yow sa pexey bopp moo fi nekk wala sa kàttanu bopp wala sa man-manu bopp wala da ngaa war a dem wiiru ji ci ab njabarkat wala ab seetkat wala ab gisaanekat wala boog da ngaa war a dem seeti jinne joo xam ne dangay wiiru ci moom mu di la taxawu wala mu di la jàppale te fekk ñooñu ñëpp yàlla moo leen gën a jege. moom nga wax ak moom jërul ngay def ñokket di jóg di dem fenn fi nga toog man nga fee wax ak moom mu dégg la moom nga moom mu gis la jërul ngay dox ngir fekk ko fi nga toog mën nga fee nekk mu lay dégg mu di la di la gis jaaral rek ci lim bëgg li ngay daj ci gisaanekat bi walla njabarkat bi ngir mu wax la say mbir walla mu jubbantil la say mbir danga ne ñokket dem fekki ko mu jaral la dem boo demee itam lum la laaj danga nga ko ko jox mu jaral la ko loolu bu la ko yàlla jaralee mën ngaa ubbi koo ci moom sa aajo it mën naa fajoo ci moom ñàkk a xam rek moo tax nit di fi wan suñu boroom ginnaaw di dem ci leneen waaw waaw nit itam li muy sonn yor aw tuddu di ko wirdu di tëju wuti ay cuuraay wuti mbub mu xong mu muy sol wala mbubb mu ñuul di ko werdu guddeeg bëccëg subaa ngoon ngir bëgg gis jinne ji mu jàppale ko loolu bu ko dajee ci tur suñu borom subhaanahu wa suñu borom wuyu ko taxawu ko jàppale ko waaye nag dafa am ay kiiraay yoo xam ne nit ki bu nee bëreet du mën a dem ci yàlla waaye day dem ci leneen loo xam ne ci rub saytaane lay doon walxiyaasu billaah loolu lépp sori yàlla moo koy waral sori suñu boroom subhaanahu wa sori suñu boroom itam mi ngi tàmbalee ci sori nit yàlla yi boo bëggee jariñu boo bëggee mucc àddina ak àllaaxira am tawféex del taqoo ak nit ñu baax ñi amal sayxul kaamil te nga taqook moom di ko nemmiku di ko siyaar di ko diglu te di ko xool mu lay digal ngay jëf mu lay tere ngay bàyyi saa boo jegee nitu yàlla te mu sax dangay mujj jege yàlla waaye saa boo soree nitu yàlla yi te sax ca da ngay mujj sori suñu borom sori suñu boroom mi ngi tàmbalee ci sori nit yàlla yi jege suñu boroom it mi ngi tàmbalee ci jege nit yàlla yi loolu lu mat a bàyyi xel la nit dangay am kilifa boo amul kilifa rek seytaane doon sa kilifa walhiyaasu billaah da am kilifa wala boo amul kilifa rek saytaane doon sa doon sa kilifa boo amee kilifa nag allahu waliyyu lazina amanu yuxrijuhum mina sulumaati ila nuur yàlla moom mooy kilifa gaa yi nga xam ne dañu ko gëm moom da leen di jële ci lëndam jëme leen ci ak leer amaa gaaña nga xam ne nag ñoom dañoo dañoo dañoo kéefër dañuy wedd yàlla wala duñu ko sant ci ay xéewalam ndax dañuy jàpp ne leneen na leen ko jox lu dut yàlla ñooñu moom ñu bew ñi ñoom ñooy doon seeni kilifa ñu bew ñi ca gisaanekat ya ak njabarkat ya ak xërëm ya ak jinne ya ñooy doon seeni kilifa ñooña nag ñoom nañuy def mooy dañ bu fekkoon ne sax yaa ngi ci leer dañ lay génnee ci leer daan lay tàbbal ci ak lëndam waaw ndax yàlla leer moom yàlla rek moo ko yor te ku yàlla juxut leer amul fenn foo xam ne mën na faa mën na faa jële leer moo tax ñuy ñaan suñu boroom subhaanahu wa def ci suñuy xol leer ci suñuy xel ci suñuy ruu ci suñuy wax ak ci suñuy jëf ak ci suñuy jëflante lépp mu def ci leer alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim xayril maxdubi alayhim wala ddaalin amin bi xusuuril xulubi tasjud laka yaa sayyidi bi xayri juhudin wa bika llahu yaa jalilu fala sa'iba taniki fi xayri suduri bi kutusika al mukallal bi nuuri arsika al azim al majid wa bima kaana fawqa arsi haqa والسمع وسيد الروح لسانك إذ كنت مسلما على قصر خاطر إلى أن نؤتي بالتوحيد واجعلنا من المحبين والمحبوبين المقربين العاشقين لك يا الله يا أولي وافتح لنا كل باب كنت يأتيه بسهره من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رسلك فينا صلا وخذ لنا الجن والشيطان يا الله ودمر كل أعداء تدور بنا